wuy sama nday ay eh waay yàlla na ma yàlla def melentaan bu boobaa ma ma dugg ma dugg alors nañ wax si Aïda Samb bi nga xamee nii moom moo quitté presse aar gannaaw waa Pastef waa waa li nga xam ne ma la Ouz moom moo sonal Ouz Ouz waa kawteef bi nga xam ne ni ñoo xam ne information boobule kii di Aïda Samb euh, nee na nit na li nga xam ni mooy presse aar et ki nga xam moom mooy Aïcha Koné lan moo xew presse aar lan ba ñi nga xam ne nii artistes yi bari ñu ngi fay quitté lan moo xew Ouz nat parce que tamit. Hmm. Aïcha Koné yàggul dara génn na fa créer moom tamit. Euh, poli jo kii jonge ah alors. jonge waaw album bi nga xam ne tey la a génn à partir de donc ñoo koy hmm. xaar bu baax a baax. Euh, album wala single. single nee na à tout moment mën a doon album. Ah alors wax ko de maa ko wax. Ah, léegi. Mhm. ak ki nga xamee nii mooy Aïda Samb moom tamit kii na Prince Art Ousse kër gi dafa mel ni gaa yaa ngi daw de lu xew. waaw xam nga Aïda Samb waxoon na ko mais dégluwuñ ko woon. waxoon na ko mais dégluwuñ ko woon. waaw kañ la ko waxoon. capitaine ba teel naa réer waaye yaa ngi ko jàng. kon uh-huh. ñi xaw kase benn sëñ moo moo moo digal verre yi quoi nee naa koy soxla. <laughs> lii kay luñ la digal la. mystique la. Hmm? Hmm. daf ko teel nga ni nu ko kapit ñem ba teel naari waaye yaa ko ja. ma linge ba woy leen saara ba. dafa mën a way Aïda. Aïda a way. mais Aïda Samb tamit lépp lu am prince aar la. la si ginnaaw Youssou Ndour la nekkoon. yow loolu dañ koy waxati. pourquoi ko quitté. waaw bëgg <laughs> bëgg a quitté yaa ngi nii da bokk ci groupe ba si yaa ngi war sa sax nga ne quitté <laughs> groupe baa ko neexatul mu quitté. mais. est-ce que du may maanaam li ñuy doon wax naan fu mu toll nii maintenant dafa am jëkkër ji nga xam ne mun na ko yor car macha allah euh, catuma ko. macha allah su ma xaali xëy na waaw fii man mii maa ngi la koy wax man mii li ma lay bëgg-bëgg su ma amoon jabar ju ma mën a yor ba dama lay ma amoon jabar ju ma mën a yor yor ma ni ma war a yoree naan ma naan ma taxawal fii xoolal kii del ànd ak kii moomoo dama lay filtrer da loolu. <laughs> <laughs> loolu ma fi nekk di yiiri yaar ak dem ak ñëw dama lay ba. yàlla dafa dogal. Aïda sàmb lu mu am ci àdduna ci woy Prince Art la ko amee. Mm-hmm. ñoo ko génne. Mm. ñoo ko def chanteur. Mm. chanteur moom du teuse astafurlah oust. foo koy taf. baax na waaw mm-hmm. amoon nañ fi doon dégg mais garaaw mën nañu ko tëb yaa ngi comprendre def ko liñ ko def ba Aïda Samb doon Aïda Samb. Mm-hmm. di surtout ndaanaan. di mm-hmm. doomu Mbàkke Bawol ak Jolof. wallaahi loolu way. ndax man mii yàlla dogal na sama xarit nag la daan àndal ñun ñu doon toog moom ca Mbàkke Bawol muy Bamba dii la. bu baax a baax a baax a baax a baax euh, léegi nag dafa nekkoon ci charte mooy dafa doon liggéey bi mu demee ba ñooñu def ko lim ko def mu nekk seen boîte di liggéey xëy na dafa dem ba mënal boppam nana doon nga wax sunu sunu sunu sama ko dàq mm-hmm. ndax ndamoo sa nday ak sa baay ak kër jàmbur dëpp ndam Mhm. moo tax woykat bi ne bul dox di sukkandikoo kenn ak jëfam ba jëfoo bàyyi nag kenn ku nekk ak jëfam te jëf nag sa jëf dajale mu mhm. ne sa mhm. ndey ak sa bàyyi bàyyi ak seeni jëf te fexe yow jëf-jëf ju gën seeni jëf yow bay faloo ko fale ma dolli la ci moom wayoon na ko waaw bu la sa baay mayee damoo la ko waaw bu la meree damoo la ko bu la sa yaay mayee bu la meree damoo la ko bu la sa yaay mayee damoo déet alors sa baay mais namoo na ko moomoo la liggéey ak moom waaw lu ma liggéey maax moom te lu ma may maax noonu la demee en tout daal bon vent sa verre yi ma sol et bon pour cher allez Nana waaw ah mais bon vent et bon pour mais mais mais mais mais d'accord ñoo ngi former ay xale. Mhm. Euh, parce que tax tey jii nii All Star yi am na benn teaser bi nga xam ne woon na ko génne All Star yu seen petit gallé ñoom Justine ak Amek ak ñeneen ak ñeneen donc euh, tey jii nii. Aïda Samb quitté Prince Art ndaanaan bu mag moo quitté Prince Art Aïcha Koné quitté Prince Art mhm. ndaanaan bu mag mooy quitté Prince Art mhm. donc euh, est-ce que du problème bi rek ba léegi maanaam toog lu yàgg yi mhm. génnoo te fu mu nii dañuy jëm si été été bi nga xam ne nii euh, ça fait deux ans mois de décembre bi ñu jëm wala été bi ñu jëm Sénégal dañ ko namoon amuñu ko woon parce Covid 19 jaar na fi euh, politique jaar na fi. te jaaraat na fi nii. voilà d' te jaar na fi donc. Euh, artistes yu bëri. xaaral xaaral maa ngi jéego wax la dama lay fenn ñun suñ DG bi daa corona dama lay dama koy jëw. saf yow yaa ñeme yàlla alors euh, fu mu toll nii ñu bëri ñoo ngi préparé wu génne mais bu fekkee naa bokk benn label dafa am looy tënk doo tëb tëb rek génnee donc est ce que dul problème yooyu yëpp moom moo tax ñi nga xam ne ñu nekk Prince r di fi fu mu toll nii pour génn. waaw xam nga loolu nag question boobu moom wax dëgg yàlla. tataan doon tataan ngooy doon mosoo la tontu. waaw mosuma la tontu. ak ak ñoom ñii fa génn waaye man laay waxee mooy. Euh, fekkee artistes yi toog ba ay mu wëraat ba tuur bi daj moom mi bokk ci. Mm-hmm. ok bokk ci de. maax la ko. Mm-hmm. boo ko waxee dëgg la waaw. barki Dembo Ndiaye album bu bu doy waar muy album wayal ma mu génnee ko mu toj àdduna. Mm-hmm. te ba léegi nit ñaa ngi koy euh, lekk reesagul te moom bu ko sentiroon léegi day génn parce que ndaanaan la mhm. te ñoom ñi mu nekkal xam nañ ni ndaanaan la kullu fadrin mhm. diggante Mbàkke Jolof comme nooree ni ni mu ko waxee papaam nekk ndaanaan yaayam ñu ñu leen di ñaanal suuf ci kaw ñoom ñépp ñu nekk ay ndaanaan ndaanaan yi géwal yaayam nekk waykat bu kenn dootul présenté biir Mbàkke kon kii bu woyee dafa war a way bu woyul dafa war a way ñu dolli ci très bien falaa doon ñëw ñu dolli oh. ci mu nekk sëtu Sàmba Jabari Sàmb moo la woyoon woy bu rëy ba bokk ci mhm. Siré Siré mooy kan famille Youssou kon moom bu woyee dafa war a way moom bu woyee de kon dañ koy dañ dañ damm waaw moom bu woyee dafa war a way bu woyul dafa war a way gis nga dafa am loo xamante ni nit ki moo koy sentiral boppam nekk ci bërëb xam ne man mii gisatuma fi sama bopp nga jóge fi comme ni nga defoon fee rek waaw public SN loolu tudd non public dañ maa dàq public dañ maa dàq kon Feeling Dakar la Feeling nekkee noo nga defoon ma leen di nuyu sama xarit yooyu dem quitté bu mu nekkee fee nu tudd sax Euh, sama xarit yooyu Feeling Dakar. aussi fa aussi fa la nekkoon kenn ñoom ci réew mi. man nag je suis dit. jëf yi ba foofu ñoom ci mi nga bàyyi ñoom télé Sénégal. Eh, baax na si yéen alors en tout cas Aïda Samb ñoo ngi koy souhaité bon vent bu fekkee ni sax euh, quitté na donc di remercier bu baax a baax ñi nga xam ne nii euh, waaw parce que dañu lu ñu war a wax moo bëri waaye Seck dañ ko dugal si beneen coow oto loolu il faut ñu wax si coow oto coow oto kan. Mm-hmm. dinaa si ñëw bàyyi ma pare te fii mu ngi bëgg a bëgg oto alors alors kon comme comme ni nga gisee tamit euh, comme ni ko waxee Aïda Samb ñoo koy souhaité euh, bon vent. dégg naa sax moo ngi am ay ay projets yi nga xam ne nii war ko génnee waa Kawtef ñooñu ko xamal donc merci beaucoup à parce que li ngeen waxoon tamit si ay secret donc tamit bañ ko vérifié te mu nekk dëgg donc euh, merci beaucoup à moo tax bii tamit ñu gëm leen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Nims.

parce que instant boobu ñu ngi dégg waaye day may jàpp oto yi. bi moo wax loolu. moo wax loolu sa sœur. moo wax loolu sa sœur sama sœur bi ñu ngi tase euh, restaurant bi nekk Almahdi Yoff fa lañ tase bi